président Khalifa nee naa la président Khalifa Sall lépp lu muy def ak lépp lu muy wax ci lu leer la koy teg ci lu wóor la koy teg jógul pour ndax sénégalais yi. d'accord ñun ñi ànd ak moom di dugg ci nit ñeeg nitaan yi danaan la carrément fasuma fi yéenee wax loo xam ne bu ëllëgee duma fi ñëw tele laa toog nit ñaa ngi seetaan. Mm-hmm. lépp lu ma wax nit. <coughs> Mm-hmm. lépp lu ma wax nit. day fekk ma man ko mhm. su ma ko mënul dama naan la manuma ko kooku mooy président Khalifa Ababacar Sall naxul nit ñi mhm. li am la lay wax maintenant nag li am yow sénégalais bi da nga bëgg a dëgg dëgg nga dégg léegi nag danga bëgg a dégg leneen mu bàyyi la nga dem déggi leneen parce que loolu moo xew Sénégal nag mhm. léegi soo waxee dëgg ñu saaga la xas la lu nañ dëkkal la foo dëkkul mais yàgg yàgg dëgg gi daf lay fekk si mais li ma mën a wax ci nationalité bi man ci gém gémmiñam sama nopp amul amul nationalité française avant même élection 2019 parce que 2019 paré été na pour nekk candidat dara xagn ko ko won nak lu le ko xagn tay ji ñu bari motax tay le dañoo bañ le président euh, Sonko bokk motax tay nangu wuñu dem affaire bi daf may man sénégalais dañu 2019 ba Macky Sall le président Ousmane Sonko demoon na dialogue. Mhm. te xamoon na ni le président Khalifa du bokk xamoon na ni. Karim Wade du bokk Ousmane Sonko demoon dialogue kay xanaa. 2019 dem na dialogue. Ousmane Sonko. Mhm. parti Pastef dem na dialogue 2019. Mhm. te boobu xamoon nañ ne le président xalifa du bokk te pourtant président dafa yónnee woon ñu ko teewal ca dialogue ba. tamit malgré mi ngi woon si mi biir président. man daal li muy mën a wax moo tax ni la moo tax ma ni la politicien bi gën a constant fii ci Sénégal. man mii la. c'est le président Khalifa Ababacar man dal li ma la mën wax ci double nationalité bi kenn du ko wax leneen double nationalité bi nak ni la démé. Légui nak kenen ku yaakaar ne leneen am mhm. ni ñu def ba génneel ko Rose Wardini mhm. nañ ñu ko génneel man dal li meuna yakar ci double nationalité li ma wax ci double nationalité bu Khalifa Sall il l'avait renoncé en 2015 pour préparer aux élections présidentielles mhm. mais bien immobilier yi mu am France faciliter la la neutralisation parce que Khalifa des femmes ay bien immobilier yu paris <laughs> c'est France c'est Lolo day day raccourcir journal pour journal sama journal journal journal bind. <laughs> détenir des biens à Amiens immobilier faut détenir des biens à dans le Var bien immobilier et quand tu détiens des biens immobiliers énormes dans un pays mm-hmm. de raccourcir la naturalisation attention mm-hmm. parce que mënoo bëgg jiite suñu réew Sénégal la nga am Séné la am France au pouf la nga am Sénégal De raccourcir la naturalisation c'est ce nit ñi di wax mais du wax dans les actes et les faits il a il est exclusivement sénégalais. dàq nga yow. j'ai dit dans les actes et est faits. il est exclusivement sénégalais. mais est-ce que renoncé la nationalité française. non j'ai dit il a renoncé à la à sa nationalité sénégalaise. il aurait en 2015. parce qu'il se préparait à être élection gis nga nit il koy rek mhm. mais dafay am liy cat liy un ci soow mi mooy. Mhm. dafa am loo raccourcir la naturalisation française mhm. moi bien immobilier yu énorme yi ma yor France.

xam nga nag xam nga nag soxna si le président lu muy lu muy lu mu yor Sénégal lu mu yor lu mu yor France lu mu yor tey est-ce que dana na ko teral mbokk Sénégal ma ne ngeen wax ci nag ci nationalité bi nañu wax nañu wax ci nationalité Khalifa Sall dama ne mën non j'ai dit dama la reconnaître loolu yaa déedéet déedéet waaye xam nga boo bëggee jóge ci nationalité bi dugg ci bien naan ah, ah. ci bien li ma la wax ne la ces biens immobiliers day raccourcir la naturalisation est-ce que tu comprends. bien sûr parce que mon am yenn bien yi bitim réew ba paré. Mhm. nga ne man pas ma français c'est pas possible Donc dans les faits et gestes il aurait renoncé à la nationalité en 2015. conditionnel. est-ce que tu comprends. Mhm. document bi dernièrement wone na ni il a renoncé à sa nationalité mais du moment où guenné amul décret bu mu woné ni il a renoncé à sa nationalité pour dire vrai mhm. amul décret bu guen bu guenné ni dafa il ne l'a pas brandi les gens ñoy def seeni recherche ba xamni en 2015 beaucoup na ci liste citoyens français yi nga xamni dañoo renoncé dañoo nationalité dañoo amatul nationalité française mhm. mais la limite par rapport ak li ñuy wax mhm. mooy munoo am bien yu tollu noonu nee naa la li mu am Séné li mu am bitim réew France moo ëpp fuuf li mu am Sénégal d'accord non. nañ par rapport par rapport à la double double nationalité yow constitution candidat je te dis. une autre manière de penser une autre vision. non attends le Sénégal a vraiment nationalité américaine. non mais nationalité américaine. qui New York man man man non nationalité j'ai mm. man pour xam nga lu tax. si naa ni benn candidat bu amoon bu amoon nationalité sud sudan. du poser problème un candidat bu fi amoon nationalité Mali. du poser problème. française bi française ak américaine xam nga lu ñuy wax France Amérique Angleterre Allemagne mooy ñu développé ñu ça veut dire que ñun faiblesse infériorité bi ñuy dund moom la ñuy refléter d'une autre manière xawma ndax comprendre li may expliquer. Mm-hmm. mais loolu c'est très dangereux soo xoolee sénégalais yi war a ñëw dans l'avenir ñu leen di préparer ci réew yu mag yooyu ñooñu dañoo judd rek ay la. ñooñu ñoo mm-hmm. y a des sénégalais dans les centres de dans les centres de préparation de la NASA. tout à fait mm-hmm. ay xale yu fa nekk di jàng. dans les aviation. ci seen simulateurs yi boo demee da nga fay fekk ay doomu Sénégal yi ñu fay jàng. Mm-hmm. soo demee au niveau du Silicon Valley da nga fay fekk ay nationalité yi xale yu fay jàngee bàyyi sénégalais yaay américaine ñooñ ñoo war a mën a defar réew mi léegi lan moo leen war a a tere ñu am lu baax am xam-xam war a defar réew mi parce que am nañu nationalité dañoo judd fekk ko fa. loolu ah, ay surtout que suñu équipe nationale ba sax ñu gën a taxaw pour cent te li ñu ñun dañuy jàpp ne ñoo ko moom loolu pour man ay tapale réew mi bu fekkantoon ni dañuy dem jëli ab français ci boppam. mu ñëw diriger ñu non dama wax xoolal man wa taxal wax la bu fekkoon dañuy dem jëli ab français ci kon barke borom Touba Mbacke benn nationalité la am exclusivement muy Sénégal musuma am feneen kay man dëkk yi ma jaar yàlla dimbal na ma am naa ay relation fu ma bëggoon ci aduna bi dinaa ko kon voilà ndax fu ma dem dinañ ma nawloo xam nga lu tax li ci am daal mooy Khalifa dece euh, un passeport français mais sa pièce d'identité française dafa expiré dafa expiré voilà loolu moom loolu tout le monde la sait si si si si. si par rapport à la. ça maintenant. question la Khalifa Sall en personne mo ci éclaircir. Mhm. c'est-à-dire la lanterne des Sénégalais parce que on a vu que euh, yenn ci ay leaders sax biñ euh, double.